mais actuellement il est midi 54 manam tok nañ xaar ñu 2 heures de temps yo xamné ne yi nii yéexaay bi ci suñu côté le féete ñu ngi ci jéggalu bu baax di leen vraiment remercier aussi ci sen téway parce que dimanche la metti na bari nañ liggéey trop mais peut-être euh, relation yi ñu am taxna ba bi ñu invité lepp lu ñu jàppoon nañ ko pour ñew téwé li nga xamné moy point de presse biñu organiser ñi nga xamné ni aussi ñew nañ ci muy supporter muy dirigeant muy joueur yéen ñep ñu ngi leen ci remercier te di leen ñaan aussi li ñuy liggéey yéen lañ koy liggéeyal wax la wax lañuy def te wax ba beneen wax ñëwé fekk sé ko mën na ko salfaañe ba tax lañ sa bëggoon duñ ko am donc dañuy ñaan ñëpp ñu déglu bu ko défé ñun li ñu metti ñu bëgg Sénégal yëpp xam ko bëgg aduna bi yëpp xam ko ñu may ñu ñu wax ko ci dal amul yuuxu amul përti përti amul dara na ñëpp déglu rek parce que affaire yi ci xel la ci wax la dañ ñu dañ ñu jiiñ loo xam ne li defuñu ko ñu jàpp ne sàcc la loolu lañu ñu bëgg a boolewaate loolu la ñu bëgg a dénoncer pour dénoncer ko nag il faut ñun ñu am ay argument argument yooyu bu ñu dégluwul mën na bañ a feeñ ci micro yi ni mu ci war a feeñee ndax wax juy am ci ginnaaw donc ku ci nekk nag lay ñaan boo mënee noppi donc on va démarrer ce point de presse d'abord en français ensuite en wolof nous allons lire une déclaration en français on va la traduire en wolof ensuite on laissera le soin aux journalistes de poser des questions sur des points ou des zones d'ombre sur lesquels il voudrait apporter des lumières ñun dañuy naqarlu di mettitlu li nga xamante ni moo dal ci suñu ASC ku gis mobilisation bi ak xale yi maire yi yëpp ñu ngi déglu ASC bi et je pense que rôle ASC loolu la MASC maa ngi ko ci jóg mais li dal metti na képp koo xamante rek justice moo la ñor waxuma ASC Manko mais dëgg moo la ñor et le monde ci monde sportif ngay évoluer li xew mooy lan ASC Manko dafa daje ak équipe boo xamante ne nawle lañ muy ASC moom sa réew authentique ñu football demi-finale ñu gagné leen un but à zéro match boo xamante ne derby la woon parce que ci benn quartier bi la football nañ ko ci jàmm ku nekk ñibbi si jàmm kenn xeexul kenn xulawul à notre grande surprise ñu indil ñu fi PV boo xamante ne dañ ne ASC moom sa réew mooy gagné match bi ASC Manko day toog ndaxte ASC Manko da ngeen a xon waa moom sa réew dañoo xon waaye yéen li ngeen gën a xon moo gën a bari donc waa moom sa réew 100000 la ñuy fay yéen da ngeen di ñàkk match au profit de moom sa réew bi nga xamante ne moom it nañ ko ce qui est une incohérence boo xamante ne kenn képp kuy doxal yoon rek mënoo ko dég, de mënoo ko nangu bi loolu xewee aussi ñun ASC Mankoo ci yoon la ñuy dox comme que am na ay instances yoo xam ne am nga ci ay droit de recours def nañ ko bi njëkk mooy au niveau de l'ordre ordre l'ODCAV ODCAV dañ fa yóbbu suñu suñu suñu appel et malheureusement ils ont confirmé li nga xamante ne moom la zone bi def mieux ODCAV def ci yokk ne ñun suñu dirigeants yi sax te loolu nekkuloon ci PV wu zone bi suñu dirigeants yi dañu envoyé dañu nekkoon ci biir stade bi ñoo fa ëppoon mais ñu waxal leen ne ñun organiser wuñ match bi ku ku xam stade xam ne kuy dugg dinañ la wax lan ban lan moo waral nga war a accéder fii ku ci ne am nga fa war a yem donc li ñu dugal waa manko yi ci biir stade bi c'est parce que ña fa war a dugg nombre bu yem la nombre ba fa war a dugg la xañ na nag ñun toujours dañuy fës parce que ñun manko dañu décider ne fu ñuy dem dañuy accompagner suñu équipe moo xam ci supporters yi la ci kaw boo géeyee ci xool ci kaw bleu blanc ngay gis boo duggee ci biir ñun ñëpp on est à l'effigie de notre euh, équipe xañ na nag loolu moo leen tax mais li ñu jaaxal mooy loolu ODCAV da ko jël chargé waat ko la CQRP de la de l'ODCAV da ko jël chargé waat ko ci dossier bi pour confirmer ce qui s'est passé au niveau de la zone ñu ne déetawaay ñu ne comme que yamul foofu nañ ko yóbbu fi ndax mbaxana doone benn ci nawetaan yi parce que nag ONCAV moo njaboote ñëpp ñoo xamante ne ñooy évoluer ci ci nawetaan et que ñun dañu respecter li nga xamante ne moom mooy tëralin yi nga xam ne moom lañ tëdd bi on demee on ONCAV malheureusement aussi jël li nga xamante ne moom la zone bi waxoon ñu teg ko ci mieux ñoom it ñu jëlaat yokk ci ne ñun suñu secrétaire général dafa yëkkate ak kàddu yu tegginuwul teg ko ci deru waa ODCAV yi may xamal ne ñun manko ku ñu xam xam ñu ci yar xam ñu ci tey xam ñu ci teggin lii xew tey amaana xañ xewoon na ci beneen ASC leneen la ñuy wax ci mbokk ci ñoo xamante ne ay dëkkandoo lañ amaana bu xewoon di nga dégg ne coow am na ci te loolu waxuñ ko te di rappeler ne ñi ñu ko sékkal jël nañ fi ay ndaw yóbbu leen fi police fukki ndaw ak ñaar yóbbu nañ leen ci police ci anam yo xamante fi lañu gagné ci demi-finale bi di def suñu suñu suñu suñu suñu manifestation pour wone ne dañu kontaan bañ leen rombé ñu sànni ay xër ay ndaw sànnante ay xër nga xey tak leen yóbbu ne ñoom ñëpp dañu dañu toj ay yef dañu yàqal yef yëf xew fi ba bobu ba légui nak ñu ngi and ak dal ñu ngi and ak tay parce que ku ñu xam-xam ñu ci yar xam ñu ci tay dajale suñuy ndaw jàngal leen ay valeur la ñu xam parce que ASC boo ci nekkee nit ki da leen di tënk ci ñun ci jub da nga leen di jàngal wan leen yoon wu jub wan leen ne loo am da ko am ci mérite wan leen ne seul le pay mais li ñuy def ak njaag njaaj ñëpp mën nañ ko waaye nañ leen xam ne manko fu ñuy xaar ku ñuy xaar ñu sëdd la ci gaalu xaj duñ ñu fa fekk ñun dinañu xeex nag parce que lii xeex injustice la dinañu yuuxu ba képp kuy évoluer du monde sportif di nga ñu dégg képp kuy autorité administrative dinañ dem suñu yëkkati suñuy tank wax ak yow parce que li c'est un danger c'est un euh, précédent dangereux dans le mouvement navétane té buñ ko bayé mu law dana indi yeneen i yo yoo xamante ne na euh, mënoon nañ ci bañ yegg xoddiku nak bala nga lakalé et je pense que fofu lañ ci toll ku gis lii nga xamante mo am mobilisation ci quartier bi ndaw yi di topp sen ASC ñi di def li leen war ci biir terrain li war moy ñu jappalé xalé yi won leen yoonu njub yoonu deug ak yoonu liggéey parce que loolu rek mooy may mooy may ay résultats ci àdduna donc loolu la ñu bëggoon a tënk pour xamal ko ñi nga xamante ne mooy ñëpp ñoo xamante ne tey jii le mouvement sportif ñor na leen ak képp koo xam ne autorité nga ci biir buur di sant di gërëm journalistes yi nga xamante ne ñoo def déplacement bi di wax rek bu amee koo xam ne am na loo ci bëgg a yokk wala question yu ñu war a poser ñu poser ko rapidement rek et dans dix minutes ñu jéem a tënk xañ na daje bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm